bismillah ah yéen waa Sénégal yéen waa àdduna wërngël këpp xew-xew bu nar a neex xew-xew bu nar a alaa daw ba jaaxal ñëpp ana kan moo xewle mën na la kookoy Mously Wade kookoy doom ci Moustapha Wade ak Jali Suma nee naa leen nit ku baax nit ku yaru ba ñëpp seedal ko moom lañ ñër a jël soxna kañ lay doon mën na la le premier janvier moo nar a nekk ñaareel bi mën ci bii boor mën ca bee boor kan moo koy jël soxna mën a la kookoy Omar Ñinga ki ko mën di ko def a ki koy jémmalu ñoo bokk naa leen kookoy Ñinga Waali si ga sëtu si nekk Alassane kookoy doom ci Ibrahima Ñinga kookoy doom ci Khady Faye yi nee leen kookoy papa Idisa ak papa Ibou nee naa leen narul yomb de fan lay xewee mën a la foofu ca Géejawaay le premier janvier waay lay xewe foofu noonu ca marché bu bees arrêt 41 nee naa leen bu ko kenn tàddee moo tax mën la musli wànde nee naa la amal jàmm waay yàlla na sëy bi bàkkeel yàlla na jàmm yàgg. musulman dafa bëgg yow yow muslim muslim si dafa bëgg yaayam